recensement bi nag bi yàlla dogalee ñu def ko ba arrêté keroog ajjuma lañ taxaw xëy na am na ñoo xam ne déclaré guñ la ñu lakk ndax nanguwuñ koo déclaré waaye li nga xam ne moom lañ jot a déclaré mat na 1 milliard 475 millions ci ñi nangoo déclaré rek 1 milliard 475 millions moom lañ moom lañ jot kii waaye nag bari na ñoo xamante ni dañ ne dara ci àdduna leen jaral daal di wax la ñu lakkale ndax dañ ko bëgg a bàyyee mi nga xamante ni moo leen ko tegoon léegi nag ci biir loolu wax dëgg yàlla ah ku mel ne sëñ ah, sunu sang bu tedd bi sëñ Mountakha joxe nañu fi 100 millions ma ngi ci compte marché bi ah, président de la république joxe na 50 million mi ngi ci compte marché bi Serigne Mbuub joxe na Serigne Mbuub bu bu chambre de commerce bu Kaolack joxe na fi 2 millions mi ngi ci compte bi Madické Niang joxe na 2 2 euh, millions mi ngi ci compte bi sëñ Ablaye docteur Ablaye ñaan joxe na fi 100000 mi ngi ci compte bi. Euh, Serigne Fallou Ndiaye gindi askan wi joxe na fi 100000 mi ngi ci compte bi euh, Serigne Souley joxe na fi 10 millions euh, mi ngi ci mi ngi mi ngi nii moom dugalaguñ ko ab segla la waaye Pape Diop joxe na fi un million lépp mu ngi ci compte ba waaw ak ak sëñ Fallou Ndiaye gindi askan wi joxe na 100000. léegi ñi nga xam ne waaw ñoom de xam naa da da noonu waxtaan nañu ñoom ne leen wax dëgg yàlla xëy na mënuñu leen a fay ndax dëgg la yàllaa ko teg yàllaa lañ ko teg ndax mënunoo dajale lu mën a fay loolu waaye buñ sañoon danañ xam li fi yàqu nu mu toll pour bii de xam naa mat na ay 400 400 personnes à peu cent deux personnes pour le l'instant ñi déclaré laa lox de mais am na ñoo xamante ni ba léegi nanguwuñoo déclaré 402 personnes daal jot nañ ne am na ñoo xamante yàqu la nañu